criminaliser euh, cannabis bi jógee Mali criminaliser nañu lopito bi jógee nigeria criminaliser brown bi jógee Ghana criminaliser cocaïne bi bi ñu criminaliser yamba nag am na benn activiste bu réew saagakatu xalifa généraux yi mu metti ko lool bés bu ne mu saaga ñu <laughs> waaw ma ne ko yow ñu criminaliser yamba nga di ñu saaga kon yow euh, ko wax feeñ alors yooyu bañ ko defee. tax na léegi trafiquant de drogue y a plus de six mois ki trois mois minimum dix ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie pañiraam bu ñu la jàppee ak un kilo un kilo de d'héroïne parce que héroïne gramme bi quatre-vingt mille francs la kon kilo bi quatre-vingt millions la mm-hmm. bu ñu la si jàppee benn kilo dañuy jël njëgu kilo bi multiplier ko par trois quatre-vingt millions par trois ça fait deux cent quarante millions ñun Jamra ñoo ñoo ñoo def loolu kon dof boobu may wax te nekk ci diaspora bi naan non non c'est un c'est un projet de loi projet de loi mooy lu jógee ci exécutif bi kii jógewul ci exécutif c'est pas l'État c'est une proposition individuelle de loi venant d'un député qui s'appelle Abdoulatif Gueye président exécutif de Jamra c'est la loi 2008 11 euh, de 2000 2007 31 du 31 novembre 2007 qui criminalise désormais le trafic de drogue moo tax benn député euh, naataango député am mm. sargalee ko Abdou Latif doo dégg mukk ñu naan la loi 2007 31 dañ naan laal loi Latif Gueye bi ñu amee ndam ci loolu nag loolu jox ñu fit ñu ne deuxième étape criminalisation de l'homosexualité mm. ndax tooñ bi bari na te du mujj fen mm. waaye année ba ca topp parce que ndam lii ma leen di wax sur la drogue c'était en 2007 année ba ca topp yéen ñëpp a ngi fi woon parce que 2000 2008 yàggul Abdou Latif Gueye fondateur Jamra di dem benn gàmmu rek fii ci Tamba gis ngeen accident ba mu fa accidenté mhm. dajeewul ak oto 4 bu bés pul boo xam ne rodage am sax jeexul mbëkkantewul ak garab dara ñu xëy rek ñu ne ñu dee na dee bu louche te yam Jamra yàgg na di demander l'ouverture d'une enquête ba léegi état du Sénégal nangu wala enquête ci affaire boobu parce que ba mu jógee ci criminalisation drogue jéego ba ca toppoon mooy criminalisation ngóor jigéen alors ba ñu demee nag ba 2016 te amatuñu député Jamra daal di yëkkatiwaat criminalisation drogue bi euh, góor jigéen mhm. mais amatuñu député ñu daal di xool ci député ya nekk assemblée mhm. mu am ci kenn ku ñu doy koo xam ne appartenance politique am ça ne intéresse pas waaye suñu mbokku taalibe la dégg nga ñu bokk suñu euh, euh, suñu xadaratul ahmadiya mu di le président du euh, du, conseil départemental de de, de Louga Amadou Mbéri Silla moom la ñu joxoon proposition de loi bi mu ne danaa ko porter mu porter ko te porter wu ko théoriquement yem ci fexe na ba def un travail de couloir ba am quatre-vingts députés signataires que bu proposition de bu bu a jàllee sur la criminalisation de l'homosexualité quatre-vingts députés ont dit à Amadou Mbéri Silla ñun dinañ ko voter yemul ci loolu président Macky Sall recevoir ko mu jël benn exemplaire ci proposition de loi Jamra en partenariat avec le député Amadou Mbéri Sylla pour criminaliser ngóor jigéen mu jël ci benn jox ko jël beneen jox ko le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass waaye Amadou Mbéri Sylla la mu daj ginnaaw bi mu defee cet acte de courage là mburu mësu koo daj ci fuur comme que nettali ci làmmiñu borom la daxee damay bàyyi boo leen amee occasion ngeen laaj ko ko. kon nag boo leen gisee et et c'est là où je en terminer boo leen gisee ñu sonn ci pour que ñu criminaliser ko c'est pour éviter mer bi nit ñi di mer ak ndax góor jigéen tooñ yi ñuy tooñ te dara du leen ci fekk dañuy ragal mer boobu xiirtal leen ñuy fajal seen boppa te loolu wóorul et nous avons souvent cité trois pays de la sous-région. jarul may wax seen tour ñëpp xam nañ ko yéen a ngi sur actualité jarul may wax seen tour pour bañ a tooñ foofu bu ñu jàppee góor jigéen amul xaar ba nga dee ñu suul la ñu sulli la sotti essence taal déedéet pendant que tu es vivant ci lañ lay ne niip jàpp yeew def la loolu ñuy wax le supplice du collier fop ay pneu yu màgget di la ko solal di la ko solal pneu yi di yéeg ba ba fii ñu sotti ci essence taal ko une mort atroce loolu bëgguñu mu am fii solo moo tax nag maa ngi profité ci seen euh, ñëw bi ngeen ñëw lancé waat appel au pouvoir public lii xew euh, Kaolack bu ñu ko jàppee pëtëm pëtëmee rek tourner la page nañ si jële jàngat yi ñu si war a jële buñ ko saafarawul ëllëg dana feeñaat feneen ëllëg mu feeñaat feneen ba ba mu jigi sax xale yi àttan nañu dootuñu xaar sax góor jigéen bu dee dañu dem songaleen pendant qu'ils sont vivants ñaanuñu ko yàlla ndax yoon dafa tere ku fajal sa bopp diine tamit tere na ku fajal sa bopp dans un état de droit nul n'a la droit de sa faire justice soi-même waaye foo gis en Afrique partout ailleurs dans le monde aw askan jóg di def justice populaire jóg di fajal seen bopp donte le gënul alors foo ko gis rek tànk xam lu moo ko waral ak jàpp problème bàyyi ko di ko mëpp mëpp alors je je conclus moo tax nag suñu revendication lu simple la. jarul créer loi bu bees on demande la réforme de l'article 319 du code pénal naka lañ koy réformer c'est très simple nañu dindi cette expression vague que de condamnation des actes contre nature nañ ko dindi daal di citer nommément les infractions ne l'article 319 condamne l'homosexualité muy góor jigéen yu góor yi l'article 319 condamne euh, le lesbianisme mooy góor jigéen yu jigéen ñi l'article 319 condamne la zoophilie parce que janvier bi rek presse bi waxoon na benn góor jigéen bu ñu bett ci banlieue bi muy sëy ak bëy loolu am na fi l'article kon dan la nécrophilie mooy góor jigéen yi xaar ba guddi parce que ñoom dañuy bëgg di diversifier seen i vices ñu dem corrompre benn gardien de morgue di sëy ak néew kon yooyu yëpp la wax ne na ko état clairement comme ça le juge il est à l'aise ku ñu defee reti o parquet juge bi bu ko gisee day xool article 319 c'est clair moo xam ne kii lii la def mu teg koy daan waaye bu ñu bàyyi tant que ñu ngi bàyyi cette expression vague que l'article 319 condamne les actes contre nature li xewoon ca gàmmu Tiwaawan gàmmu euh, Kaolack mooy xewaat mooy dañ leen jàpp bàyyi leen ñu wax ministre de la culture euh, de la justice Sidi Kaba lu tax nga bàyyi leen mu ne article 319 tuddul benn yoon baatu homosexuel dafa ne acte contre nature porox la boobu nag la góor jigéen yi di jaar di tooñ jaar fa rëcc te dara du lañ ci fokk et enfin bu ñu demee na ba pexe amatul et c'est une proposition rek parce que Jamra tuuti na torop te kilifa diine yi nekk fi état bi nekk fi mm-hmm. et ça ne peut se régler quand quand dans le cadre d'un partenariat entre xalif généraux yi ak état donc bu ñu demee ba pexe amatul Jamra ngi proposé ñu def comme diwaanu Zurich mu ngi ci réewum Suisse la communauté LGBT dafa am armeelu boppam boo fa jógee nga dem Copenhague Copenhague mooy capitalu Danemark góor jigéen ñi dañu am seen armeelu bopp coow amu fa ay kenn du ko suul ñu di leen suul foofu kon Sénégal bu ñu ba juboo mënul am loolu Jamra tuuti na trop pour yëkkati ci kaddu parce que xalifa généraux yaa ngi ñoom mën nañu en partenariat avec l'État utal góor jigéen ñi ay seen armée bopp comme ça kenn dootu fi ne góor jigéen bi dee na armel bële parce que ki coowu Kaolack bi waa ji waa ji dàq dàq nañ ko ci ñaari bàmmeel waaw mais je précise bu ma kenn wax loolu ma waxul nee naa Jamra tuuti na trop pour proposer góor jigéen ñi ñu beral leen seen armel wax naa loolu kon mu leer waaye dama ne bu pexe amatul y a deux pays qui l'ont réglé de cette manière muy la ville de Zurich bi nekk Suisse góor jigéen ñi dañu am seen armeel Euh, Copenhague di capitalu Danemark góor jigéen ñi dañu am seen armel mhm. idée bu ma sànni rek la waaye Jamra tuuti na lool mhm. ndax loolu kàddu gu day ni kàddu xalif généraux mhm. en partenariat avec l'état ñoo koy mën a régler mais tant que solution amul góor jigéen bi fii deewati di nga gis ku ñu taxaw ne kenn du ko suul si ñu bàmmeel voilà kon nag loolu laa leen doon defal comme euh, introduction bu ko defee nag léegi maa ngi seen disposition pour ñu mën a seq laaj ak tontu